fépp fu ma dem ma def danaa fa def loo xam ne kuñ ne Sénégal la jógee nga bëgg dem Sénégal. donc si je vous comprends bien. bokkoo ak ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo constitué wu en opposition. Hmm. Euh, di dal ci nguur bi ci 6 mois yi nga xam moom la fi. def di wax ne 6 euh, mois yi ñu fi def vraiment nekkul loo xamante ni dal na xel par rapport les promesses yi nga xamante ni defoon nañ ko. Ah, lors euh, ah, de ah, la campagne c'est c'est parce que man yaakaaroon naan instant yi dañu bàyyi tuuti politique bi ñu fokk ci liggéey bi parce que on a des urgences quand même xam nga dëkk boo xam ne réewam ñiy dee par jour munu ko compter xamul sax done yi nekk ci géej gi lii dee xamuñu ko kooku crise bi mu dee réew mu nekkoon da ngay oote urgence politique yi ñu arrêté ko ñoom trouve des solutions rapidement c'est pas la question de l'État il faut que ñu commencé euh, bàyyi état bi opposition c'est-à-dire que aujourd'hui c'est le Sénégal moo soxla doomam yi fu ñu nekk te diaspora bi fi ñu fi ñu nekk nii sax ils ont mal parce que bu ñu xoolee xeexante bi suñu biir encore bi ñu bëgg a waat nii te régler man li ma doon sañoon tey mooy ñu woote waat ñun ñëpp toogaat ku nekk indi sa contribution ci nguur gi fi ñu jëm nu ñu mën a fexe ba emploi ñu créer ko hôpitaux yi ñu defaraat ko école yu yàqu yu bon yu nekk ci réew mi ñu dindiwaat ko xale yi mën a dem si école bu ma gisee sànq si journal bi école yi ñu wane ne nañ ko ba pare comme ça même rêver pour être quelqu'un amul sens et su fekkoon politique bi sax dañ koy wax ci la confrontation des idées comment régler ces problèmes man là je suis d' mais politique boo xam yow da ngay taal sa télé sang euh, songu nit di ko saaga suba ba ngoon. mais mais kon ñoom li ñuy wax nii da ko koo soofantal daal euh, opposition bi actuellement. non mais dans un pays on a besoin d' opposants moi je suis un démocrate mais man dama gëm opposant boo xam ne mën nga construire en même temps c'est-à-dire que dafa teel six qu' est ce que un ñoom nee ñu dundu dundu bi ñuy waxoon dañ koy wàññi wàññi nañ ko mais mi ngi ah amaat inflation immigration clandestine bi ñu waxoon ne euh, c'est c'est politique actuellement mi ngi continuer ba tey y également les inondations ñoom jàpp nañ ne li ñu fi diggee woon yëpp dès les premiers ni woon dinañ ko résoudre en tout cas euh, ci euh, li nga xamante ni moom mooy premier jour yi asu yow gëm nga ne immigration bi fi nekk depuis indépendance ba léegi sénégalais di tukki bitim réew illégalement nee nañu ko jaar depuis ancien régime bi mu fi nekkee ba léegi nit ñaa ngi dee ci biir géej yow yaakaar nga ne 6 mois dana ko tabax loolu c'est-à-dire ñun suñu ñàkk vision mooy loolu cest à réew bu ñu ko tabax ko da ngay def comme chinois wala ba ma demee ko how did you make it with Lee Kuan Yew ma with vision hard and sacrifice we sacrifice two generations to make it nee na euh, Alima Jacob bi may décoré nee ma sacrifice nañ deux trois générations pour ñu mën a yegg si a ñëw nga ne la da nga war a changer réew mi euh, si 6 mois mënul nekk ñi koy wax boo leen ko joxoon tamit duñ ko def képp ku la wax ne réew mën na ko changer si c'est-à-dire que pour développer ce pays là ça va prendre des années il faut que ñëpp def sacrifice. kon ñoom combat bi ça va être extrêmement difficile. donc opposition bi di def nii yaakaar nga ni dina am danga yaakaar ni du am benn finalité euh, vraiment bu bu bu objectif. si c'est la politique politicienne moi je je je man man man li ma gëm ci demool politique mooy politique économique et développement. aujourd'hui la jeunesse sénégalaise ce qu'ils ont besoin mooy lu ñu leen dimbalee ñu créer des richesses ñu former leen ñu fexe ko ñu nekk politique bi ñu dem ci liggéey bi. d'accord voilà euh, en tout cas euh, man daal la c'est ce que j'ai dit aux gens il faut aller au travail c'est comme ça on va aider notre pays c'est au-delà de l'État il faut aider le pays le pays a besoin de nous la diaspora comment on va les utiliser. cette capitale humaine qu'on a eu partout dans le monde entier qui veut développer leur pays qui veulent participer mais de loin boo xoolee li nekk ci réew mi sax doo fi bëgg a nekk mais suñu genre a que ma euh, la liberté d'expression sànq wax nga ni il faut que ñu encadrer ko mais bëgg naa xam il faut que ñu encadrer on parle de débat de fond il faut que ñu dugg un peu euh, ci loolu mm-hmm. encadrement bi euh, ci ci façon parce que tey gis nañ je ñi ngi koy toppee ay chef d'accusation ci mel ni diffamation ak euh, injure également il y a euh, le journaliste Cheikh Yérim Seck il également ki nga xamante ni moom moo di Diégui euh, Diop moom si beneen mbir lañ ko teewee il y a Kader Kader Dia également chroniqueur ci Sen TV ñoom ñëpp xeetu yu mel noonu en tout cas lañ leen di toppee tey boo déggee lu mel noonu nga ni liberté d'expression dañ ko wax encadrer. je suis d'accord ci naka lañ koy encadrer. ni ñu koy encadrer du juste yi ci lépp la. activistes yeeg politiciens yeeg ñu nekk ci TikTok yeeg man je dañoo war a delluwaat si suñu aada ak suñu ànd ñun bu ñuy màgg yow doo xalaat kuy saaga sëriñ waxuma politiciens yi kese ah dire ñun suñ suñu réew moo am crise de moralité on a un problème hein on a un vrai sérieux problème et euh, j'interpelle le gouvernement il faut ñu jël ay mesures cest dire que il faut ñu encadrer yow ni day taxaw xamula mosu la gis mu yàkkal taag saaga la ay ndey sosal la te mosu la Mais comment l'encadrer sans pour autant mais, paraître... Euh, mais la justice doit faire son travail. Comme, comme un État policier. Bah, paraître comme bah, étant État policier, quoi. Par, par exemple, aujourd'hui, Khayna, ngi avons fait mbir mi, mais de l'autre côté, dañu jàpp ni État bi, ñëw vraiment pour... Euh, si vous voulez faire il faut oh. casser des œufs. Il faut qu'on se dise la vérité. États-Unis, gars, nous avons une liberté, etc. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, ok France gay ñu nekk nañ ku nekk di wax loolu neex boo fa wax ko boo fa defee usurpation wala nga song fa nit waxoo ko loo wax bu la yóbbee ci yoon dañ lay teg yoon cest à dëkk aussi dañ ko war a teg ci yoon mënoo nekk ci télé bi chaque jour nga saaga nit waxal nit loo ko mën a man dama wax ne au delà même de la politique kenn ku nekk si ñun ki may ñi may déglu ci Sénégal yëpp xam nañ ne kuñ ci saaga woon sa yaay te defu la dara boo tëddee da nga am lu la métti mais bu fekkee ak état bi encadré ko foo koy jooyee boo demee ci président la ba qu'est-ce que je peux faire y a pas de de loi qui peut rien faire donc dañoo war a encadrer parce que suñu problème bi li ko indi yëpp li ma ci delluwaat mooy dañoo nekk ku ñu war a nekk on n'est pas des sénégalais on n'est pas des blancs on n'est pas des européens ça dañu bëgg a nekk ñun loo xam te ne du ñun ñun xamuñ saagante xamuñ waxante lu dëkkal nit fu mu war a dëkk te loolu moo fi nekk loolu nag ça veut pas dire que liberté d'expression liberté d'expression dafa da nga war a sàmm aussi nit ki ak xam ak yelleefam ñuy débattre sur les problèmes de fond moi je suis d'accord la confrontation des idées ma sœur c'est-à-dire qu'un politicien qui n'est pas d'accord avec le gouvernement ou le gouvernement qui n'est pas d'accord avec l'opposition nañ leen teg ci télé yi ñu confronter seen idées on prend les meilleures idées ñu tabax ko parce qu'on n'est pas des ennemis mm-hmm. il faut que ñu xam sénégalais yi tey la jeunesse entre ñun problème yi ñu am dëkk yu bëri ñi ngay am ay problèmes kenn ku nekk si ñun nga nekk opposition wala nga nekk ci activisme wala nga nekk bitim réew wala nga nekk ci nguur gi et cetera on n'est pas des ennemis ñun ñëpp dañoo bëgg réew mi tax tabax. Sénégalais bu nekk bëgg na tey seen réewam surtout boo tukkee mu mel da gis New York wala nga gis Washington DC wala nga Singapore la nga gis barki dem fii ci Rwanda nga gis ko sama réew man loolu laa bëgg ñun ñëpp loolu lañ bëgg donc pourquoi ñuy saagante tey. loolu jarul saaga xam nga bëri na ay ay réforme yoo xam ni wala comme yi ngay wax rek soppite yoo xam ni pour mu am mhm. il faut que ñu jaarale ko assemblée nationale à travers des lois mhm. euh, tey pourquoi gisuñu la ci ci ci ci mbir moomu c'est-à-dire déggaguñ la ci législative yi waajtaay bi mhm. ñu ne coon taxawal na listam wala da nga da nga retiré wu doo ma ci gis pour pourquoi parce que man loolu tamit dañ ko war a encadré statut député dañ ko war a encadré Sénégal parce que député dafa nekk lu gannaaw exécutif bi moo topp ci pouvoir bi presque maanaam su suñu assemblée nationale foofu la ñuy voté suñu loi yi tënk ñu ñëpp tënk ñu mais malheureusement foofu ngay gisee li ñuy jàngal xale yi ñuy saagante ay ndey dóorante man loolu doo ci gis mukk parce que am na feneen fu mu mën a jëlee sama réew. te maa foofu. mais bu ñëpp defee ni yow kan mooy nekk. waaw mais am na ñeneen ñu koy def ñaata de candidats fi nekk on est 17 millions de sénégalais quand même on n'a pas besoin tout le monde d'aller faire lan nga lan nga bëgg soxla ñu ñu def encadré ko. cest à il faut que ñu li ma waxoon sànq c'est-à-dire il faut que ñu xam ne la politique dafa nekk lu noble mais politique du business la politique dafa nekk loo xam da nga war a ñëw pour service sa réew da war a apporter idée tu sèmes des graines pour les générations qui doivent des générations et des générations yuy deewagul suñu action yi ñuy teg ñun graines yi ñuy poser en tan qu'agriculteur mooy récolte bu suñu doom yi war a def ëllëg. mais Thione est-ce que du da nga ragal une seconde défaite. non moi j'ai pas eu de défaite. non je, je veux dire euh, vous, vous n'aviez pas pu avoir euh, assez de parrainage de parrain. Hmm. ba munoo woon ba bokkoo woon ci élection yi. non même si que pour vous. da ngeen non j'ai même assez de plus même de parrainage. sen seen couac bi amoon si seen clé beeg yu demee noonu. est-ce que réellement tey bu ñu la gisul ci ci ci jongante législative yi motivation yi yooyu nga. réveillé nga sànq la ma sœur c'était pas démocratique nous on a eu presque soixante quinze mille et quelques signatures ça c'est pas le problème et c'était pas transparent c'était pas démocratique. clé USB dinañ ci génne nit ci moi j' étais j' ai déjà man bi bi ñu paree élection yi amin waxee USB bi ñu paree laa delluwaat sama liggéey. dama ko waxoon ci élection yi waaw boobu depuis depuis que réew mi dafa soxla liggéeykat soxlawuñu ay waxkat que on des jeunes moi je suis content on a Bassirou Diomaye Faye Sonko hein kenn nag ci delluwaat sama liggéey dama ko waxoon ci élection yi ñi ma àndal naa leen man dama yéen ma ci dugal toll nañ foo xam ne mënu ma ñàkk euh, euh, euh, bokk. pour indi sama xalaat suma réew heureusement je l'ai fait mais moi j'ai jamais eu l'ambition de venir être président au Sénégal yàlla xam na ko wala nekk candidat wala ay politiciens j'ai pas besoin de ça. tey boo doon comparer may ma foofu rek. Mhm. nga baal ma j'ai pas besoin de ça parce que le chantier du Sénégal est big. yaa ngi wax léegi immigration yaa ngi wax jigéen ñi yaa ngi wax liggéey bi yaa ngi wax tabaxal suñu bopp suñu réew yaa ngi wax Euh, représenter suñu réew ci international te maa ngi tukki chaque jour bitim réew fu mu nekk dafa représenter du ma ambassadeur officiel mais fu ma dem maa ngi fay taxawal suma réew mais loolu chantier bu mel noonu mënoo ko yor yore école sur le digital école sur les femmes daara moderne maa ngi tabax daara daale xare yi taalibe yi ñi ngi def ay fourniture yoo xam ne c'est incroyable démb lañ dem livrer ji sama kenn suma grand yi fii hôtelam def ko ay ay xale yi taalibe ah ñi ngi jàng alxuraan jàng coding jàng daara jàng anglais da jàng menuiserie samay tool maa leen di dundal di leen defal lépp macha allah ñi ngi changer seen vie loolu mënuma ko boolee di def nekk di def ay député pour faire quoi on a assez de député nañ dem def lool mais man dama yaakaar ne politique député yi dañ ko war a encadrer parce que ñooñu ñoo war a nekk exemple pour nos enfants c'est-à-dire il faut créer des modèles aujourd'hui crise bi lu ci yokkaat mooy on n'a pas de modèle dans nos pays ñi mën a wax ñi ngi làqatu ñu war a wax mënatuñoo wax ku wax ñu saaga la d'accord les mm. entrepreneurs successeurs yi nekk ci réew mi tey am xaalis crime la ci réew mi c'est-à-dire bu amee xaalis nit ñi da ko sàcc wala góor jigéen nga wala ay franc-maçon ñoo nekk sa gannaaw c'est-à-dire réew pour mu développer il faut mu am ay modèles mais c'est en Afrique que tu peux on peut pas créer des modèles mais on sait tuer des modèles et loolu fekk changé wuñu ko te loolu maa ngi ci def appel bu mag ci nguur gi te maa ngi d'accord maa ngi maa ngi gërëm le président li muy commencé di def parce que américain loolu la ñuy def euh, même le Maroc roi bi buy tukki quest qu'il fait deux avions ci entrepreneur ba mu fees bi ñii ñu ngi ci mbedd yi ñii ngi ci BTP bi et cetera mu wàcc ak ñoom négocier des contrats ak ñoom bu ñu jëlee contrat yi mu jël seen banques yi forcer leen ñu investir pour ñu mën leen jox xaalis xaalis bi ñuy gagné foofu di ko gagné Sénégal le Maroc bi ko gagné ci yeneen dëkk yi américains yi di ko fa gagné chinois xaalis bu seen réew la jëm mu jëmbal leen seen déficit bi mais est-ce que yéen yéen par exemple bu ma nee yéen yéen ñi nga xam yéen a yëngatu ci privé bi mhm. est-ce que yéen a ngi organiser wu vraiment en cadre de, de réflexion organiser wu ba nga xamante ni yéen ci seen bopp vous êtes soudés et solidaires ah ben, pour pouvoir euh, pour mhm. vraiment euh, peut-être cadre yi bari na fi mais euh, cadre yi ci bari yëpp ñu ngi fiy gis c'est les mêmes personnes depuis indépendance il faut changer, il faut ajouter d'autres personnes, de nouvelles personnes, des jeunes. Il faut faire émerger. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération de jeunes leaders. Il faut, que ça suive. si di talent Sénégal yi fu ñu nekk jox leen doole président mi ngi ci ah, ngi koy gis man de loin. je vois ce qu'il est en train de faire yéen a non man xamante xaw ma leen mosuma leen gis. mosuma gis Ousmane Sonko mos président euh, premier ministre Sonko sorry le premier le la République euh, Bassirou Diomaye Faye xaw ma ko mosuma ko gis. d'accord mais ce qu'ils sont en train de faire je vois man daal su fekkee ne rupture bi ñuy woote maa ngi koy gis ñu koy teg te man soxlawuma ci ay ministre ay conseil yooyu wax naa la man j'ai pas besoin de ça mais li may liggéey ñu ngi ma ko yombalal maa ngi def partenariat ak ñoom DG yi ku ma ci woo mu jël téléphone ministre yi ku ma ci woo mu jël téléphone le porte-parole du gouvernement magnifique il m'a ouvert les portes mooy nekk suñu suñu pour tool yi suñu nangam et cetera mais euh, maa ngi ñu ngi may yombalal suma liggéey je n'ai rien à loolu laa bëgg réew mi mu dem parce que man je sais may formé nii bu ñu ci continuer doubler ko def ko des milliers de jeunes ñu jox leen liggéey si